31 décembre bi nag comme ni ñu ko waxee euh, bii mooy vingt cinq ans ngi nii ñu ngi koy organiser 25 ans yi ci biir 25 ans yi nag am na ñaari at yoo xamante ni jotuñu ko organiser benn bi mooy 2007 bi nga xamante ni bi ci la sëñ Saliou Mbacké làqoo mu tombeekoon ko woon mois de décembre boobu organiser wuñ ko ak période Covid 19 ñaari date yooyu daal ñaari année yooyu lañ ko organiser wuñ Euh, yi ci ëpp nag dakaar lañ ko doon organiser notamment stade Marius Ndiaye stade Demba Diop stade Iba Mar Diop euh, Thiaroye Azur euh, benn at lañ fa génn Dakar organiser ko cees muy bés bi dëkk bi nga xamante ne bii fa la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni gane àdduna muy mille vingt 2029 2022 pardon ak année bii nga xamante ni dañu choisir Mbacké donc ñaari yoon la ñu génn dakaar organiser ko fii donc chaque année nag autorités yu bari dañuy teew di jëmmal bés bi maanaam ci ci sëriñ si am na ñu bari dinañ teew ci ci ci bés bi sëñ Moustapha Sy euh, diwaanu Moustarchidine wala Moustarchidaat sëñ Saliou Tu sëñ Saliou Touré euh, ci ci ci euh, waaw ci ndigalu sëñ Saliou la fa teewe woon tamit année boobu autorité état yi tamit ñu ci bari teew nañu jëmmal bés bi euh, président Macky Sall en sa qualité de ministre de l'intérieur de l'intérieur sous le régime de Ablaye Wade teew na fa euh, et cetera donc bari na ay kilifa yoo xamante ne bi teew nañu ci bés yooyu pour jëmmal ko donc année bi ñu ngi choisir Mbacké Mbacké encore une fois vous m'avez posé la question lieu la boo xam ne vraiment c'est rempli de symboles c'est rempli de symboles donc euh, ñu choisir ko fii tuddee bés bi euh, takkusaanu alxadimia sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul waaw loolu loolu la ñu kii euh, occasion la tamit pour euh, à chaque comme chaque année rek def le bilan des activités yi nga xamante ne bi diwaanu Bamba fépp mëne nañ ko ci année bi ak perspective yi nga xamante ne bi année bii di ñëw 2024 ci lañ koy décliner ci suñu euh, njiitu ci njiitul suñu jëwriñ maam Thierno Imaam bi nga xamante ne bi moo kaw coiffé liggéey bi yëpp voilà defe naa tënk naa wax ci ci ni ma ko mu ne waaw xanaa di rappelé waat ni tamit ci bës bi 31 décembre bi ci ci bës bi ci suba am na don de sang boo xam ne dañ koy def euh, comme activité yi ñuy faral di mener rek don de sang nettoyage des en tout cas œuvrer pour Dieu à travers les hommes daal dañ koy matérialiser à travers des actions concrètes mm-hmm. waaw comme par exemple euh, don de sang bi ñuy wax nii donc bës boobu jàpp nañu def don de sang ci site bi fii euh, pour le compte en collaboration ak hôpital Cheikhul Khadim ak euh, structure de santé bi nga xamante ni mu ngi Mbacké euh, ci euh, site bi ci site bi même terrain de la gare donc fa la mbir mi di amee donc programme bi mooy ci suba si comme d'habitude dinañu wàccee kaamin jàng xasida yi jàng taalifu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ni parce que tamit loolu lu am importance la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni li mu taalif ci ci jëmale ko ci tedd ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul amul ku ko mës a def bi mouridisme sasoo ba tey nii waaw dañ koy xayma ci ay 12000 poèmes ak yu ak yu topp loo xam ne sax am na yoo xam ne day def ay poèmes yoo xam ne di ko jagleel ku mel ni Mamadou Baro mi nga xam ne buñ ko ko joxee da koy jàng ba pare yéey ko lekk ko waaw du yaatu donc ci du li ñu mën a xayma daal ëpp na ay dizaines de milliers de poèmes yoo xam ne Cheikh Amadou Kara Mbacké noonu def nañ donc ci programme bi loolu yëpp dinañ ko ci def bu ñu ci jógee def don de don de sang et ensuite après midi bi maintenant mu doon cérémonie officielle bi ñu teeru sëñ bi waaw symposium bi tamit mu ngi koy fàtte dans la matine du 31 décembre am na benn symposium bu ñuy organiser fii au niveau de du conseil communal de la jeunesse et après midi bi donc population Mbacké génn ñu mën a teeru Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ba pare déroulé euh, cérémonie officielle bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw di di di ñaan yàlla may ñu ñu teewee ko ci jàmm ak salaam tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin bi te ànd kook mboolem réew mi ànd kook dëkk waa dëkk bi ànd kook ñëpp daal bàyyi ñu kenn bàyyi ñu fenn kon di sant monsieur le di sant mbooleem ñu koy jàppale ci liggéey bi ñëpp ak presse bi yéen ñëpp amuñu seen fay wax dëgg yàlla macha allah taxawaay bi rafet na di ñaan nag ñu tàbbi ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin di jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maam Thierno Mbacke imam waa tur bi maam Thierno Mbacke imam la waa di coordonnateur bi incha allah après taxane après demi